yàlla ak design sa liggéey de yokk ko seen émission pencum artisanat dina dalal El Hadji Ndongo Thiam di président collectif euh, des cordonniers et maroquiniers euh, bu euh, Sénégal ak diaspora bi président it bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal muy artisan forever membre fondateur bu FEDAP seen émission bi nekk alxames ay doon Ndongo Thiam fas yéene cee jàkkaarloog Aïcha Bagay ci seen émission pencum artisanat bu 16 jote jotee jàpp 17h ko kenn wutee ku ci bëgg bokk mën nga woote ci

asalaamaaleykum mbokk yi sa safoo déglu rajo Afia FM 93 point 0 ni ñu ko baaxoo di def alxames bu jot su waxtu bi jotee muy seen émission pencum artisanat di jéggalu bu baax a baax ci yéex a tàmbali yi naan leen rek sa euh, temps bi moo ñu ko moo ñu xoj ndax xam nga ne suñu mbokk rappeurs yi ñoom bu ñu commencé euh, pour li leen di ne day jafe lool macha allah ndax foog nee na ñu livré li nga xam ne mooy seeni message ñu leen di nuy de passage bu baax a baax leen jaajëfal ci seen émission bi macha allah euh, loolu weesoo nag ñu ngi nuyu artisan yëpp fu ñu nekk. nekk ak ci li ñuy yëngu yëpp ñu ngi leen di jox loxo di leen nuyu di leen jox seen wàccuwaay macha allah ñoom nag ay professeur laa leen di woowee ndax ku tële jox leen ñoom ñu defar jubbanti ndax ñooñu nag dugalaat ci biir société bi kon ñooñu kenn gënu leen doon ay professeur dañ leen di jaajëfal baax a baax tey nag ci euh, plateau bi muy pencum artisanat dañ fi am nag gan gu mag gan goo xamante ne macha allah saa su ne nit ñi ñu ngi ko bëggoon ñu dalal ko waaye jot bi moo ko mayewul woon yàlla mi ko dogal nag tey dogal nan mu wuy suñu mu am disponibilité pour wuy suñu a baax di ko tamit sargal ci wuyu bu mu ñu wuyu ndax liggéey la yore macha allah ndongo Thiam lay wuyoo di président collectif des cordonniers et maroquiniers bu du Sénégal et de la diaspora nekk it président bloc national pour le développement de l' artisanat du Sénégal muy artisan artisan. forever mu nekk rek euh, membre fondateur bu FEDAP ndax ñëpp xam nañu euh, FEDAP muy euh, Mat la nekk tey jii directeur bi njiit bi nekk njiit bi muy président bi Mat Sylla ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ndax moo ci dox wax ci ba lii mën a sotti ndax amoon dong caam jafe woon na lool macha allah léegi nag du ñu def lu dul nuyu gan gi di feggoog nag ci plateau bi tey Omar sama càmmiñ di ko nuyu bu baax a baax ah Omar maa ngi lay nuyu. Ah, maa ngi lay fay Aïssa bu baax. Ah. di nuyu gan gi aussi di ko mm-hmm. dalal bu baax a baax. macha allah euh, Bachir se moo fare ci wàllum xarale gi ndongo asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Aïssa. Mhm. ak euh, waa rajo Afia FM. muy rajo artisan yi. maa ngi lay fay ngeen di fay mhm. allah ndongo euh, dañuy euh, sóobu ci waxtaan bi ci ni mu gën a gaawee ndax waxtu bi xam nga duñu xaar euh, ci li nga xamante ne loolu ndomba tànk yooyu nga yore yëpp muy président cordonnier des maroquiniers du Sénégal maroquinier sax boobu dafa mel ne bu ñu ko doon dégg ci naar lañ doon wax ne ñoom ñoo koy liggéey mais du Sénégal mais ndeke sénégalais yi tamit dañuy liggéey ci mbir moom ba doon fi sax njiit ci sud de la diaspora. c'est ça loolu moom. Mhm. Euh, dëgg la ginnaaw nag euh, bi ma bëggee ñëw nuyoo. Mm-hmm. balaa may dugg di jéggulu tardement bi. Mm-hmm. bokk naa ci ñi ko tardeel xëy na temps bi. Mm-hmm. Euh, ak circulation. circulation dëgg moo ñu tënkoon. may nuyu nag waa Sénégal yëpp. parce que ndongo ndongom Sénégal la. di nuyu artisan yëpp aussi di jiitoo ci nuyoo bi suñu ministre tutelle monsieur Dame Diop. ministre de la for euh, de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat mhm. avec tout son staff ñu ko wër ci direction yëpp di liggéey ñoom mënuma leen lim mhm. et di dellu aussi di nuyu mhm. euh, su ma waa kër su may nit ñi nga xam ne nii euh, ginnaaw yàlla noo nga ci am bu àggee fenn fii ñoom la muy ñi may bëgg di ma safoo di ma bëggee am ci man yaakaar muy waa collectif des cordonniers et maroquiniers du Sénégal et de la diaspora tout particulièrement nag BNDAS. Mhm. mooy ndey ji moom. mooy bu ba parce boobu c'est national ok bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal. Mhm. ñu gën ko xam ci artisan foree ba. Mhm. mooy président bi. di nuyu la. madame la secrétaire générale mhm. soxna Fatou Kiné Sow mhm. ak madame la trésorière madame Ndiaye Koumba Diop ñu nekk ay jàmbaar ak équipe bi yëpp ñoom soxna Ouli Faye mënuma lim daal waaw ok nekk nag membre fondateur ci fédération des artisans de département de Pikine mhm. ndaxte man ay association laa yore après association y a des fédérations waaw et nekk aussi membre ci confédération bi mag bi ñuy wax Konamas te Omar kii jiite ko euh, président Omar Seck maa toog jataay bi tey toog fi mm-hmm. casquette yu bari mm-hmm. yoo xam ne nii artisanat bu Sénégal moom moo tax point bi ma njëkk a laaj dina rafet ma tontu ci dina yomb ma tontu ci muy la maroquinerie waaw loolu bëri na sax ay ñun cordonnier ci mm-hmm. liggéey ñoo xam ne xamuñu ko ak ay sénégal buñ ko déggee foo ne marocain tax waaw cordonnier yi celui qui fait des chaussures seulement kooku mooy mooy cordonnier mooy cordonnier comme man kii def chaussure rek maroquinier mooy ñiy defar pochette sac ceinture ah. porte document xam nga classeur yi ñooñu mooy ñooñu la ñuy wax. marocain yi d'accord loolu laa bëgg aussi ñu ràññee. parce que nit ñi dañuy jaawale. waaw ne cordonnier bi moom mooy defar saak yi. ba may xale man mii loolu laa foog pour man marocain la c'est maroquinier. Mhm. maroquinier mooy ñi nga xam ne nii moom ñoo nekk ci saak. waaw ay ceinture. Mhm. xam nga ay porte bic ay porte document. Mhm. œuvre sociale yooyu noonu ay calpe ma ci nuyu président Serigne Fallou Silla mhm. chambre de métier bu Dakar muy président des maroquiniers du Sénégal Serigne mhm. Fallou ñoo ngi koy nuyu aussi de passage au village artisanal Soumbédioune mhm. nekk ñooñu ñooy maroquinier moom il est maroquinier à cent nit yu baax nit yu jàmbaare dëgg la léegi euh, defar dàll bi ci euh, li nga xamante ne moom mooy dàll yi ñuy defar fii am na ñu bari dañ doon wax na ne daal yi jógee Chine. Mhm. ñuy ñëw fii en général. Mhm. Euh, nee du adapté ak mhm. ñi nga xamante ne mooy suñu suñu tànk nit ñi tànk moo tax léeg-léeg ñi tànk yi. di bari. ba ñu naan léegi nañu jël ni nga xamante ne moom mooy. Euh, daal la der yi mooy der yi ñuy defaree fii. surtout ñu koy recommandé ñenn ñi muy euh, affaire problème orthopédie la. est que gisoo la tamit ne da daal yooyu ñi nga xamante ne te ñu ngi koy concurrencer ak fii nit ñi dañu xamul wala lan moo tax duñu ñu choisir loolu. ok soxna Aïcha dinaa sawar ci tontu la ci question boobu ndax maîtriser naa ko te xam naa ko te yàgg naa ci xeex man maay première personne bi njëkk a def place de l'obélisque woo ay artisan lépp di ay cordonnier def marche pacifique am autorisation et woo ci tous les waa Dakar tous les départements de Dakar Guédiawaye Pikine Médina ba Tëngéej xale yi engagé wu fayal seen bopp ay car ñëw wuy si waxuma la ci coordonné rek ci seen artisanat bu Sénégal mhm. man maay ki ci njëkk def marché place de l'obélisque mhm. autorisation ba may laaj ma ne bëgg naa fa 500 personnes ba muy fee ñu may remercier di ma jaajëfal commandant police yi ma yoroon encadré ma sama marche di ma remercier di ma féliciter que on a vu avec les experts quatre-vingt et personnes kon réussir nañu. Mhm. dëgg euh, euh, boobu. Euh, loola la koy doon mooy lii ngay wax booba chinois bi parce que nee naa leen nit buy xeex dafay xeex ci dooleem. Mhm. président la république Macky Sall ñoo ngi koy nuyu de passage di ko masawu ci mbas mi ñu nekk. Euh, sonn na ci trop sonn nañ waaye moom it sonn na trop. Mhm. ñaar sama borom defal leen ci ndab mhm. ba génn ci alhamdulilah rabbil alamin ndax mooy sunu ndam. moom ci boppam sax te war na xam loolu ma koy wax parce que dafa ne dafa taxaw pour créer d' emploi. chinois yi dañuy suuxal emploi moom indiwu ko fi da ko fee fekk président Macky Sall. pour mu xam ne dañuy suuxal emploi nañ leen euh, bàyyi ci li ñu xam ñoom li nga xam ne ñun xamuñu ko ñun li ñu xam ñu encadré suñu doom tàggat leen ci ñun ñu jéem a développer réussir ci loolu ndaxte duggaguma ci problème mu Covid waaye Covid bi rek war nañu doole artisan yi bu baax a baax a baax am na lu mu jàngale lu bari. Uh-huh. Euh, parce que cordonnerie et maroquinerie boobu ngay wax ci laa lay leeralal. Mm. daal di chinois yooyu ngay wax. Mm. léegi yéen soxna yii. waaw ku ci accouché dafay am problème ay tànk ay sévi. waaw yow sa âge bi sa morom bi dañ daan sol capp. léegi baatu capp déggatoo leen di sol. waaw que seen da ngeen a am ay problème mu tànk. Mm. bokk na ci li koy indi dal dalli xoy-xoy chinois yi ñu leen di jox. Mm. ngeen koy sol. Mm. ak euh, seen garniture yooyu ñu leen jox ngeen koy tapp ci seen ween yi ngeen baal ma ci wax ji. ci ñaw yi jigéen ñi place su dënn bi noonu. ci poitrine yi ci daamine yi. yooyu ñoo leen indil maladie cancer de sein yooyu yëpp. te boo leen ko bëggee xam demal ci benn mercerie bu leen gën a jege ngeen yëkkati produit yooyu boo ci taf sa bakkan bi da ngay xam koy sànni fee du plastique du kaw su ngeen xamul produit wu ngeen jël ko rek bëgg muy xoy xoy di tàkk rek taf seen kaw <laughs> ngeen jàll ci am ay wopp tànk yi dàll yi aussi waaw chinois yi daal di jaay ñoom chinois yi leen di leen ko xool dañ leen di xool jàpp ne ay africain lañ ko jox def mu loxo bi nit ñi di leen xool ñoom duñ ko sol liñ leen jox ñoom parce que c'est des produits toxiques sama gëstu bu ndaw rek ba jamono di baax ah parce que ñoom fu mu ne xam nga luy yomb la ñuy wut prix bi yomb bi. no ñoom dañuy wut xaalis ñoom ay nit la ñu. ñu ngi leen di gis ak ma leen a gëm te fan leen ay nit la ñu ñoom ñoom néew ñeewuñu kenn toppuñu ci ginnaaw kenn di dart darti du Europe du Amérique waxuma la ñun africain yi. Mm. chinois. Mm. moo dañoo yoroon dara mais dañu gëm seen li ñu yor xeex ci sa doole ngay xeexee. Mm. boo bëggee gagné. waaye lan moo leen tere yéen tamit doole xeexee noonu tam pour mën a leen. jëlee ñun ñu ngi xeex moom indi ci plateau bi nii da nga naan suñu njiit yi lan moo tax. Ah, ñoom ah. xooluñu xeex boobu jàppale ñu ci ñu dem ah avec ce nouveau ministre daan Diop. Hmm. ñu ngi ciy am si yaakaar. parce que du a nëbb man du ma raayal kenn ginnaawam. Hmm. li mu fi defagun man ci li ma fekkee ci sumay at ci histoire artisanat bu Sénégal. Hmm. gisaguma ministre bu ko fi def. mi ngi góorgóorlu bu baax di jege artisan ndax xale la jeune la. parce que lii may wax boo gisee ma koy wax je le connais très bien. Mhm. dama ko xam lu jiitu muy nekk ministre de l'artisanat am ay qualités yu ma xam ci moom ba ni mu egsi fii mu egsi xam na ma man ndongo. Ah. moom ministre daam yëpp daal ci rax bi mu sol man nii maa koy ëw maa koy liggéey. yaa koy liggéey te gis naa ci rasulullah bi ma koy defal du ministre. d'accord ba nga ni xam naa ko. dafay consommer local. Mm. àll bi yaa ngi koy suivre machine wàll yi maa ngi gis ci Facebook bi sax yu ñu euh, tëgg yi tëgg. Mm-hmm. mu ciy góorgóorlu di leen ci motiver leen encourager puisque sa kilifa moom moo la mën a motiver. te moom mi ngi motivé wax dëgg fa yàlla guddi yi ñu tollu comme nag tàmbali day soog a ñëw yàgg ko fi xëy na balaa kii sama borom ne def changement yu bari baax na mu mel ne Omar dafa am lu mu la bëgg laaj ndax mu ngi yëkkati loxo Omar waaw waaw euh, tout à maa ngi koy dégg muy wax que ni euh, euh, chinois yi mhm. comme si côté boobu ñoom matériel yi ñuy indi xëy na am na ay danger yu si nekk yoo xam mhm. si ni ñun xamuñu mhm. peut-être moom mu ngi yëngu ci loolu moom xam na ko est-ce que tamit jotul ngeen def coalition jéem a xeex loolu jële fi te xamal nit ñi sensibiliser nit ñi xam xamal leen di leen ah kat lii nii ngeen di jéem a ut peut-être yomb na tamit si côté yomb boobu bëgg naa fi ñëw nga indiwaat tuuti leeral mm. parce que boo xoolee chinois yi xam nga ñun Sénégal du ma wax ñëpp mais bëri na si ñoo xam si ni du ñu jéem a xool qualité quantité la ñuy xool alors peut-être foofu dafa gën a yomb ba tax nit ñi jëm fa est-ce que yéen tamit jotul ngeen gën a xoolaat seen travail bi prix bi gën ko ba mu tolloog suñu niveau pour que ñun ñu bañ a jéggaani loolu ñëw jël li nga xam ne si ni moom lañ defaree suñu biir dëkk. voilà ok question boobu comment encore. Omar Diop. Seydina Omar Diop. question bi am na solo trop. te neex na ma parce que lu ma xam nga ma laaj. et daal chinois bi. Hmm. qualité balaa ñëw ak yow ba pare fi nga wax. du qualité baaxut. c'est des matières yoo xam ne daalu chinois am wax la ko tey bu carax yooyu ngeen di jënd ay pété Sénégal yëpp néeg boo ko teg nga teg fa deux paires yi daal ni jarul ngay taal yu anti moustique anti moustique yooyu waaw yi garab yoo tey eh, du ay caaxaan ah. yow ma kafu ma sax yow ma dama bëgg ngeen dem seen kër ngeen essayé ko à de aujourd'hui même mhm. la ñu di ko sol plastique ñoom amuñu plastique plastique moo am yooyu mhm. bay Côte d'Ivoire Congo ay arbre la garab damaa dem ba tim ko ci Abidjan mhm. ñu koy jam mu ne ay njooytoon di ñëw ci la ñuy xellee plastique gisoo paan yu xonq yi kaw si yooyu ñu fi indi for yooyu noonu biir bi mhm. yaa ngi leen di gis ñi ak yooyu ñuy fóotee yu rouge yooyu mhm. pure plastique bi fii la ne Afrique mhm. ñoom amuñu plastique seeni mbalit yi yi ñu daan jël ah. daan ko yóbbu ci réew yu ndóol yi ay jamono bu yàgg ba Youssou Ndour doy desi toxique di ñu ko indil fay la di ko sotti ci suñu géej gi jën yi daan ko lekk ñuy am wagaaki ndoxu siti ba ñu dem ba OMS jógoon ci ñu yeewu ci xeex loolu ñu dem ba phénomène boobu baaxatu ci ñoom mhm. parce que dañ daan coopérer ak pays yu pauvres mhm. ñoom di yooyu dem seen yoon ay desitox ci seen usines yu bon yooyu yu baaxul yi mhm. loolu lañ daan indi ci réew yi daan ko def bi ñu dem ba ñëpp nand leen ci ak tubaab xeex ko ñoom chinois boobu dañu bëgg a ñu bàyyi loolu jël matière bi xamante ni ñu koy def ñu koy def ci ay conteneur di ñëw ci port yi Afrique yi di ko fi bàyyi ndox ñun xaalis rek la ñuy wër mm. fay la xaalis bëri bàyyi fi conteneur bi ñu naan ma nga terre plein bu ko fa bàyyi lu yàgg ñu dañ koy saisir mu jekki jékki daan fa explosé mhm. ba explosé ñu xool li ci ne dara baaxut mu indi ay wopp ak ay jàngoro ki biir biñu dem ba loolu baaxutu plan boobu baaxutu ci ñoom ñu xalaat ci seen xel yu naaj ci mbalit moom la ñuy recyclé waat ci dëkk bi di ko togg di ko xelli xeetu plastique di ko defar ay carax ay dàll réew bu ñu dem ñi ngi dox ak tànk di xool li ñuy ñu bëgg ñoom ñu dem def ko parce que seen état yi dañ leen a encadré jàppale leen ci mhm. ba dañ ngay def projet bi ñu financé ko mhm. fii nag Sénégal ñun bu njëkk da ngay def projet kenn du la finance ci trois lañ koy sànni dañuy xam noonu ko jaam financé ko projet bu ñu ko xamul duñ la ko financé mhm. mais fii artisan yi ay jàmbaar lañu cordonnier yi ay sénégalais lañu barza barzaq gi ñuy xeex pour mu deñ man billahi li ma xam ci ay xale yu dee ci métier ci cordonnerie yi ci cordonnier yi dem ci géej gi seen yaay gisut leen seen baay gisut leen ñoom ñi ngi may déglu seen i billaahi dañu xëy rek saraxal leen xamuñu ci ñoom dara bëgg a tekki moo leen yóbbuwoon ñàkk ñu jom de mm-hmm. ay liggéeykat lañ may nekk sa réew dëkk njaarim mm-hmm. wala Touba wala kawlax wala Thiès wala Ngaay wala même Dakar gii Pikine wala ah. Géejawaay mm-hmm. war a liggéey doon ponkal mu am sikkim war a yóbbul sa yaay dépasse liggéey ba wàcc nelawoo yaa ngi yow huit heures xëy ci place liggéey ba ngoon amoo foo jaay amoo loo liggéey mais vraiment boo faraatoo 400000 francs damay dem ci géej ga ah mbëkkante ci dem Europe kon parce que di dund di dee xam nga di dee di dee dafa gën di dund di dee. dégg nga wax bi bu baax. di dund nii te dee. Mm-hmm. dee da dee moo ko gën. nga xam ne yow da ngaa dee benn yoon mu jeex. waaw ñu saraxal loolu jeex ñi gisoo ci dee waxatuñu leen dañuy toog di ñaan rek. mais ñi dund di dee ñoo fi nekk di agressé. Mm-hmm. ñoo fi nekk di def naka su dul noonu. Mm-hmm. ñuy feesal kaso yi. mais jeunesse bi jàmbaar lañu ku ci ci àll bi la ñu xam. kenn ku ci génn du loon ci côté pris yi nag. côté prix yi fa laa jëm ak yow. waaw prix yooyu nag sénégalais ci boppam foofu ñun client ñun consommateurs yi ñoom soxna ay sa comme ça. Hmm. ci seen bopp dañu bëgg lu yomb de sénégalais yi. je te ndax. waaw est ce que tamit seen waaw ah, euh, seen doole baal ma ma ñëw baal ma ma ñëw non daal li ñuy liggéey ñun cherul. Hmm. ay carax yi 1500 la gars yi jaay fii ak carax yi 2000. chinois du liggéey cuir daal cuir yi ku ko bëgg muy qualité loo gis ci àdduna dafa am quantité et qualité boo mhm. ko bëggee da ngay ñime man ministre bi dinaa ko jaay ay daal quinze mille ak moom mi xam ne nii fu la ci mën a dem ci àdduna bi taxaw jàkkaarloo ki naata ngoom te boo yi ma mën a ne ci suuf billahi on peut créer des usines mhm. coordonnées fii ci Sénégal comme Maroc ni mu ko Maroc ñoo amandoo indépendance ñu nag ñoom mhm. dañu am roi Hassan II ne leen damay tëj frontières yi ñu ne ko président def nii mu transformatrice dama leen di créer ay crédit mutuel yu leen di encadrer jàppale leen. Mhm. Euh, les cordonniers noonu artisans yëpp. waaw tailleurs yi noonu coiffeurs yi noonu. marocains yi ñu installé wu noonu. léegi projet boo bind boo ñëw ci banque boobu mu financé la nga yor sa dita sa kër wala nga yor sa benn fabrique ci koñ bi moo am Maroc ay atelier la ñu yor. Mhm. ay dem naa fa ay entreprise seen bopp la ñu yor nii. Mhm. ba pare créer ci emploi ay ndaw ba pare dem formalisé wu. kon Euh, euh, lii di artisanat li ñuy wax ne ne euh, secteur bi moo mën a suqali développé ab réew yow gëm nga ko. mais lu amul gëm looloo am doo feeru gëm mooy li am ku amul li ku xamul loolu moom xamul dara ci réew. waa yi nga xamante ne amuñu carte nag formalisé parce que nga baal ma foofu ay wax defarut am réew ab liggéey dafa réew artisan yi mooy ñi fiy liggéey <laughs> mais ñi liggéey ñooy dox réew soxna si ñi fi des dañuy wax rek te Sénégal ngeen baal ma da ngeen tàmm dañu tàmm di wër ko jàng tubaab waaw bu ñuy wax sa naa yow jàngoo mais léeg-léeg na saa su jox ma laaj na lu mu jàngut lan lan da ngay wax quoi métier wala anglais wala arabe wala alxuraan wala français ban ci jàngoo la wax yem ba pare ñoom kole ko ci français jàng pour xam na du pour mën. Mm-hmm. kon yéen ñu xam loolu ma déggee bu baax yéen euh, pratique bi maanaam nga xam am man métier bi sa loxo téegu waaw gën a soxla ku ñëw naan jàng naa mm-hmm. ak am ay diplôme mais ki amee diplôme loolu lay wëri day wëri benn métier pour man ko d' accord léegi euh, Ndongo ñuy fàttali mbokk auditeurs yéen a ngi déglu seen émission. day def stage euh, ñu lay ñuy dara ci plateau bi nag ki di Ndongo Thiam di rek euh, président artisan forever mu nekk nag loo xamante ne bloc bi moo ko gën a soxal te moo ko gën a ñor naam sax ñi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew mu diaspora bi ñu yëngu ci wàllum collectif cordonnier ak maroquinier moom mooy seen jiit dégg lu moo jot a wax fii kon war nañ ne rek li nga xamante ne mooy kiwir bi ñoom ci lañuy ñuy liggéey wax na tamit chinois yi ni ñuy liggéeyee ak loolu ak tamit marché bi war nañu ko xoolaat parce que tamit lu tax ñu ñu bàyyi ñooñu ubbil leen marché bi mm-hmm. ñu di fi dugal di lor te fekk am na ñoo xam ne ñu ngi koy liggéey fii ci réew mi lu tax mu nu ñu defee eh, mooy euh, produit yi nga xamante ne mooy euh, menuisier yi mu ñi nekk ci dëkk immobilier ni ñu leen defal est-ce que mënuñu ko defal tamit ah, ah, nga ah. xamante ne ñoom ñooy cordonnier mm-hmm. su ko li nga mm-hmm. xamante ne mooy eh, importé bi bii ñëw fii ñu bloqué ko ndax ñiy mën a eh, suqali wane seen xam defe naa loolu ñu accompagner waat leen mm-hmm. parce que tamit mënuñu wax ne ne eh, boobu ba léegi ngi wax ne ne am na loo xamante ne def defar nañ ko teg ko muy benn banque bi muy ACEP mu doon joxe xaalis financement ci affaire u kii bi est-ce que yéen cordonnier yi ci ngeen bokkoon wala non non non bokk leen ci non non non Aïcha hmm? Eh, dafa am fu fu fu baax foo foo foo laal mm-hmm. muy ci problème financement yooyu pour ma am lu may dolli mm-hmm. et eh, ñuy jaajëfal ñi joxe financement yi mais nekkul fonds yooyu moom mooy li doxal secteur artisanal ay 5 millions ki 2 millions ah. loolu yoruñu mm-hmm. loolu doxalut lan moo leen yow pour yow bu ñu leen waroon a tey nan lan la solution mooy lan lu may dénk monsieur le ministre Dame Diop moom mu dégg ko avec son staff dama bëgg artisanat dafa jot bas après nga ubbi euh, ligne bi 688 88 88 628 05 05 88 628 05 05 nit ñi mën nañu dugg joxe seen. Euh, dafa jot contribution ñu xëcc la jeunesse. Mhm. fi ñu toll nii avec euh, troisième millénaire. waaw muy ndaw ñi. waaw ndaxte man ñi ma jiite su may ci mhm. su ma ay yaay lañ ak suma ay papa. Mhm. alors ñu jël ki si ligne bi ba pare daal di dellusiwaat. allo salaamaaleykum. salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. aleykum salaam. waaw sëñ bi na ngeen def ñu ngi leen di ñu ngi sant yàlla bu wér wér. ñoo ngi leen di nuyu di nuyu seen invité donc sëñ Ndongo Thiam. ñu ñu ngi lay fay ndongo mu ngi lay dégg tur bi naka la ak fan nga di woowee. Euh, man Mouhamadou Mbaye laa tudd. ah fan nga wootee maa ngi wootee Medina. alors waaw yaa ngi déglu waxtaan bi avec Ndongo sànq ba léegi ñu ngi waxtaan déglu bu baax a baax avec plaisir vraiment ah, ah, ah. Euh, di kontaan ci moom di déggu ci moom li mu wax am na importance lool dëgg la Euh, di ko wax ni nag vraiment euh, li muy jooytu noonu émission bi sax xam naa du fi xaj. ndax hmm. moom jàmbaar la ci li muy wax. dëgg la dëgg la. te li mu wax rek daanaka artisan yi la ko waxal. te ñu ngi ci ginnaawam. Mhm. ñu ngi koy encouragé. ndaxte suñu jooyukaay la ndax fi ñuy jooyee dafa jafe te ñun amuñu ko. Hmm. kon su ñu amee kilifa gu toll noonu. waaw euh, li mu wax. Hmm. ñoo ko wax loo. dëgg la. di ko encouragé di ko félicité bu baax a baax ak artisan yëpp a ngi ci ginnaawam. dëgg la dégg la dëgg la. waaw ñu ngi koy ñaanal nag fu mu jëm ak fa mu bëgg a dem yëpp yal na fa yiw am. amiin amiin mhm. amiin. ñu ngi koy félicité bu baax a baax a baax a baax a baax. Mhm. alors ndongo mu ngi lay dégg de. Mhm. waaw léegi ndongo man defal ma lay propose lu ma lay laaj tuuti. dégg naa ci biir waxam mu wax ba tudd chinois produit yi nga xam ne ay chimique la. Oh. dagg na moom nag ah waaw waroon na waroon waroon na na ñëwaat na ah, ñëwaat dugg ah dañaa dugg 88 li mu doon proposé mu yeggale ko mu yeggale ko ndongo mën koo dégg mooy laaj bi muy laaj waaw ndongo mm-hmm. yaa ngi doon waa ah, am na keneen ku nekk ci ligne bi allo asalaamaaleykum salaam na ngeen def waay ñu ngi fii la man la man la Libaas Ndiaye Gaynde Ndiaye ah Libaas Ndiaye Gaynde Ndiaye noo def waaw sant yàlla bu baax ñu ngi lay déglu waaw man de du ma coordinateur béykat la waaw béykat nga waaye xam naa ne daal moom ah. suñu état bi. waaw. ñoo amul fulla amuñu fayda. Baadu. maa la wax loolu. ah déedéet waay waa jooju danger bu mu wax ci dàll yi chinois yi rek wala seen yére rek ëpp ko. waaw. billaahi la lii la ilaha illa huwa feebar yi muy joxe. Hmm. lépp lu ci docteur wax rek xamal ne weesu na foofu du dàll yi. Mhm. du yére yi du lenn du seen lenn lu baax loo xamante ne dañ ko jox dañ ko jox suñuy. wallaahi. man xaw ma suñu état bi fan la ñu nekk. te nañ jàppale suñu suñu coordinateur yi nañ ñun nañ comme suñu pour ñu jàppale leen ñu gëm suñu bopp dama ne nañu gëm suñu bopp liñ ñu jox nii poson la li nga doon doxam ci si yu bëri ngay gis nii daal di feebar daal yooyu noonu da koy xëcc da koy da koy génnee doxam ci da koy génnee day joxe koor comprendre li mu la wax noonu seen magasin comme asma boo fa rombee sa asma jóg du taxawaalu lépp si daal yi la nekk lépp loo xamante ne lépp lu mu ci wax rek xamal ne bàyyi na ci lu ma junni musiba lañ ñuy jox ñun africains yi moo gën a garaaw imperméable ak mbuus yi ñuy wax nii mhm. yàlla xam na loolu benn baaxu ci nag mais moo gën a garaaw mhm. loolu mooy dëgg mhm. dëkk bi dañoo waxantewul dëgg nañu waxante dëgg mooy dëgg mhm. baax na baax na Libaas Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal bu baax ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xaritu rajo bi waaw waaw Libaas Ndiaye Gayna Ndiaye dégg nga lu mu wax uh, foofu mhm. waaw yaa ngi woon am foo nekkoon mhm. uh, ci li nga xamante ne moom mooy financement yi ñu doon doon wax mhm. uh, muy gunge kon li kii di ni Libaas dafa mel ni loolu la war a loolu lay firndeel muy nguur gi na xippi bëtam te jéem a xool naka lay mën a arrêté yi ni mel bañ lor li nga xamante ne mooy askanam di citoyen pour bàyyi ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñu développé réew mi c'est ça waaw mooy li ma moo tax ma ne am réew mënul développé nit nit du nit du nekk champion lu du ci doole mm. mbër mu fi ne champion écrit boobu yëpp da ngay dégg ñooy écrit boobu ñoom ñooy champion bi léegi Pikine ñooy champion Guédiawaye ñooy champion xam nga lu tax dooleem la xeexee xeexut ay dooley Castor wala jëppal foofu laa expliqué pour Sénégal ñun ñu yeewu ci loolu mhm. ñun yàlla daf ñoom may loo xam ne nii man damaa foog ne man bañ amee indépendance ba li njiit ñu am sax pour man dañ koo xamut pour yow waaw pour man donga ci am nag xamuñu ko xamul ta xamuñu ko pour man mhm, mais yow Afrique ba mu daj mhm. est ce que xam nga ni métier ñun ak Maroc ñoo ci man Euh, métier ñu nag Maroc ñoo ci mën ñu jël kooku ci ligne bi allo. allo waaw. salaamaaleykum. ma ne daal xam nga la moo ko taxoon a jóg. waaw waaw. pour sangu wala pour jàpp wala pour dëkk yi nga xamante ne dafa am. buntu douche kooku mooy kan libaas. waaw dëkk yu am galaas yi. waaw. wala booy sangu wala ngay jàpp. Hmm. moo taxoon ñu liggéey dàll yooyu te du te du sax du façon yi ñoom ñu ñuy jaay nii du façon yooyu lañ la ñuy utiliser loolu. Ah, kon pour yow du daal tàngaay. non du ah non ko baaxul musiba la. pour pour pour ñaari suivi sax yooyu wala pour sangu wala pour jàpp rek ñëw summi moo ko waroon tax a jóg te waru doon sax qualité boobu même qualité bi ñuy jox ñoom hmm. te loolu da ko war a def rek summi waat ko automatiquement mais xoolal ñi koy sol xoolal seen dàll yi ñoom ñëpp seen tànk yi hmm. ñoom seen dàll la xoor wala boo ko solee dafay mel day mel ni yow xorom xorom ngay jóg yi hmm. mais baaxul wasalaam maa ngi lay dégg bu baax ndongo waaw dagg naa loo wax ci loolu foofu laa expliqué ma ne ñun 88 la 628 05 05 88 628 05 05 da du doy de. da caam mhm. sa day ñëwaat suite bi mhm. parce que bii euh, début bi la. day ñëwaat jeudi bii di ñëw. mooy nekk suite bi euh, di fàttali nag ne membre fondateur FEDAP la. Mhm. membre fondateur FEDAP. mooy ku leen dégg ku ne. ñuy wax nga xamante ne suñu wax dafa am fuñ ko teg département de Pikine voilà euh, te te Massila Massila Gueye voilà maa ngi nuyu ñooñu ñëpp Seydina Omar Mbaye les cerveaux ak Alassane War euh, ay ñoom Alassane War euh, ak sama pël bi dafa fa am ay pël yu bari rek ci biir <laughs> foofu baax na ñu dem ndongo <laughs> léegi gis nga ni mu wax ci financement bi yaa ngi ci doon wax war nañu accompagner ñi nga xam ne cordonniers yi ba ñu mën a ni ñu def ci commande mooy importé yi war nañ ko mën a defal tamit ñi nga xam ne ñooy attan mais seen kii ngeen jënd à part financement bi mm-hmm. boo ko yeggalee mooy euh, euh, nan matière première bi. muy mm. der bi gis mm. naa léegi ñu koy jël di ko importer di ko yóbbu. waaw ma ba mooy li lay wax sànq tegguma ci ñi ko yóbbu dañoo am fulla dégg baat bi ma wax nee naa la Afrique Afrique de l'Ouest Afrique centrale chose euh, so Afrique du Sud Afrique du Nord foo ci dajale Sénégal. ak Maroc ñoo fi ëpp doole ci artisanat gis nga Maroc Maroc comme France. ay tubaab lañ def seen bopp. waaw seen bopp africain de. waaw waaw pas faire bu de. ñoom ak Algérie développement. Mm-hmm. xamul la ñuy xeexe dañu i jàllaa bi fii. ok suñu jigéen sax force ngay doon naar. dañoo xam ay ay ay ay choses nu ñu koy waxeeti ay mbaxane yu xonk yooyu dañu ko fee incarné ñun suñuy mbaxane bopp lañ daan ràbb fii suñu paa Eh, gën baal ma ci kàddu ñoo ko def sax suñu paaw géwalu séeréer rab yi mm. daan rab fi mbaxari sor sor yu rafet mm-hmm. ñu ko daan sol yooyu la ñu xamoon ñooy incarné ñu ko mm-hmm. ñëw incarné ñu marakis marocain mm-hmm. marakis ngaay am fii marakis sénégal am fii Medina lépp yi ay marakis yi awkati marakis la te gin ñaa ci rasulaa yooyu gën fu fi ñu fi indi lépp der la boo bëgg ñu defal la sax ca biir mu nooy mooy yi ngay liggéey yi ñuy liggéey ñun fii ci réew mi danga koy raxas da nga koy der yooyu ngay wax aussi mm. ñaata tonnes yi der mooy génn fii par weer rek sokaas gi dama ñaata tonne der moom mooy wàcc ci tabaski màggal gàmmu korite yi ñuy am fi nga xam ne ñun Sénégal. Mm. mooy ren di gàtt ci àdduna bi ñoo la ci man mm-hmm. ñaata tonne der ngeen fi gis yu taxawaat ci mbedd yi ah? Ah. sax du reye noonu ay xaar. yaa ngi may dégg bu baax ba pare dañ koy jéggi dem suñu yoon. c'est des milliards man nañ ma jox ay milliards finance ba ma créé ci usine boo xam ne ni dina employé lu mu dee dee benn 3000 jeunes ci réew mi te président koy def te bu ñu koy jaay waat tubaab bi dañ koo soxla ñoom ba léegi waaye ñun dañuy dox ci or di ñun Afrique mais est-ce que bind ngeen tamit. waaw ah, est-ce que est-ce que bind ngeen loolu waaw ah. parce que mu ngi wax financement bi man bindu ko ah. waaye boo mën naa laa limal ay nit yu bënd. ok parce que am nañu bind bindati. mais parce que projet li nga wax ni projet la te dañ ko war a accompagner. parce que da ngay créer mm. d'emploi est-ce que loolu tamit. mën nga 3000 jeunes xam nga boo nekkee ci dara. boo nekkee ci dara da nga mm. wane sa bopp. te mm. tamit nangoo nekk ca kanam lépp loo xam ne si moom la laaj nga def ko. Mm-hmm. yéen a ngi bañ euh, comme yéen wax ni financement bi mënul régler est-ce que yéen tamit yéen ngi bind projet yóbbu ko fi nga xam seen fa la war a dem pour ñoom ñu euh, ñu gunge leen nga baal de passage may nuy président pa euh, directeur Pape Amadou Ndaw directeur de l'APDA mm-hmm. agence pour la promotion et développement de l'artisanat mm-hmm. euh, jàmbaar la ak madame Keita maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp de passage avec toute son équipe góor góor lañu jàpp ñu ne pour promotion artisanat bi temps yii góor sax góorgóorlu nañu ak ministre Dame Diop mii bañ ngeen ne sax ñun artisan ñi jàppale ay 2 millions 2 pour ñu góorgóor renforcer tuuti seen i fonds 2 millions sax mënul dara hmm. mais maanaam joobu gàtt gën naqub neen dégg nga wax bi bu baax waaw xumaa na ko daan wax si c'est ça léegi 2 millions boobu sax mën nga ci jënd sax am machine sax te ko amoo woon hmm. machine hmm. kon donc c'est mieux que nga bañ ko am ok 2 millions yooyu bi ñu ko commencé bu doon dañ ko war a jox par exemple téeméeri artisan mais 8 yee am wala 12 ya 2 millions yi jeex man mi di wax ak yow lekkuma ci rek cent franc mm-hmm. mais nag loolu ko def lu baax dama koy wax mm-hmm. maa ngi ci rajo laay waxe awma ci cent franc mm-hmm. mënuma laa joxe ñun fi mu toll fukki sénégalais artisan yi ma xam man man dongo ak li ma fi ma toll fukki nit yu ma la mën a joxe ñu ne la kii na na ñu may wax ci seen ngëm ñu may am nañ ci xaalis ba dafa jeex mais loolu soxla nañu ko nañu ko ministre bi dugalaat te ñu lijjanti projet yu ëpp doole loolu ñu dugalaat ko fond wu aseb yooyu ngay waxit man lu artisan di am am naa bu dee sama entreprise bopp am naa ko bu dee sa organisation. Mm. ay organisation laa say quatre membres ñëpp. samay organisation yu leer du waxi kase. Mm-hmm. laa yor pas ay affaire parce que réew mi ñun ci suñu biir artisan yi nag dafa am lu ko yàq. waaw léegi da ngay dem tourner rek dem APEX fay sa jëtt junni. ñu defar la kayit nga naan maa yor kuréel sàngam ak maa boote kuréel sàngam dafay bari pour directeur yeeg ministère yi ñu bàyyi xel ci ñooñu bu baax. waaw parce am na ñoo xam ne tamit dañu mbubbu woo turu artisan yi ñoom ñoom ku dépendre ci ñooñu yaa ngi doxal secteur bi yow di nga paralysé yaa ngi moom da ngeen di àndi paralysé te ñun du tee ñu dox ñun moom suñu baar yeeg suñu place saa suñu xëy nañ a def ngi nii benn mhm. dangaa tëb li des mhm. man maa ngi toog di dénoncé di wax mhm. yoon moom mayut boo ma ma la Samba Ndiaye dama naan la Samba Ndiaye mais yoon mayew ko ko dëgg la nee nag dama ne. Hmm. pour autorités yi ñuy déglu. Ah. ñu bàyyi xel ci ñooñu man su ma sañoon sax dañ ñoom bala ñuy joxati ay yenn benn xaalis wala dara. ñu woo kuréel yëpp ñu woo président kuréel bi ne ko wol ñu sa bureau bi nañ ñëw sa waa ah. kuréel gi nañ ah. ñëw toog mbaa ñu woote ca koñ boobu wala ca salle kooka hmm. secteur am fekki ko sax ñoom autorité yi wala ñun ñu fekk si la xam naa duñu xaj ci seen direction ñoom ñu fekk si ñu def benn atelier bu ma comme FEDAP bi muy def ci jàkkaarlooy et tout surtout loolu aussi lu intéressant la parce que mbir dafa man organisation buy taxaw ci réew mi bokk naa ci buy dox ci réew mi mënuma leen ne bii la mais loolu aussi dañ ko war a seet d'accord ñun la wala c'est l'état aussi bu ñu waxantee dëgg mhm. puisque mhm. artisan chaque jour yow yaa ngi ci rajo artisan bañ nañ ba suñu projet yi góorgóorlu ngeen góor ko man wóor na ma ni dara ñëw seen ginnaaw lu ay artisan ak seen i góorgóorlu d'accord euh, FEDAP yéen ngi ci euh, yéen ngi ci liggéey ci mhm. mbas mi bu mu duggee léegi am mhm. na benn tànk boo xamante ne FEDAP yëkkati na ko fi mhm. muy masque yoo xamante ne yéen a ko defar te kenn joxu leen kenn gungeewu leen te kenn euh, financé wu leen seen kopparu bopp ngeen ko jëlee ci seen poste yéen waa FEDAP ngeen fi liggéey liggéey bi fan ngeen toll tey jii ci mbas mi surtout nag ci seen sensibilisation beeg xeex bi waa fi ci toll mooy bawuñu ba tey yi lañu ñu gën a mën a xeex pour mbas mi jóg fi ndax mbas mi woppos artisan yi la pour man mhm. pour man du wopp àdduna bi de wopp artisan yi ndax artisan yi ñu ne ci àdduna muy liggéeykat yi mhm. kuy taxawal mbas dérangé la ndax buñ la piniré yow wala toggal sa kër lañ la caa fekk mais ñun ñi daa nekk ci tali yi ba minuit une heure du matin da baaliwuñu taxawal ñu di liggéey ci mhm. diggante ay commande jàmbur ki rendez-vous ñu ne ñu toog leen seen kër te ñun bu ñu génnul duñu am dépasse bu ñu génnul duñu am ordonnance ñun ñooñu la mbas moom Mhm. moo tax gis mbiru suñu borom foofu dama la ciy leeral ne la. Mhm. FEDAP def na ci paa yu am solo. lam furaatoo ko ñëw ci démam ki daqaaram jébbali ji na ko. Mhm. ay autorité ba ay autorité wan leen ne ñu ak yéen ñoo bokk tiis bi. ñun ak yéen ñoo bokk euh, Covid bi. di ko partagé wu ak yéen. mu doon ay acte bu rafet parce que ay ndaw lañu ay xale lañu yooyu ma si la président gis nga ko xale la. man maa ko mag man mii di wax ak te man rek xale la ah. maa ngi lay dégg lu baax c'est ça ay xale lañu. yooyu yëpp li ñu ko yóbbee mooy dañu am ambition ak vision ci suñu kanam que jamono bii ñu toll du jamonoy Senghor. Mm. du jamonoy Abdou Diouf. du jamonoy Ablaye Wade jamonoy président Macky Sall il est jeune nous sommes des jeunes. Mm-hmm. notre ministre il est jeune. Mm-hmm. monsieur Dame man moo ma yar xale la. alors am na euh, ambition liggéey lu bëri laa na si ñu jël ki si ligne bi ba pare waaw ñu jël kooku ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. allo. salaamaaleykum. waa mel na ni ko mu ngi ci ligne bi. mais may jot a yegg allo. waaw mu mel ne mën na duggaat ci 88 628 05 05 88 628 05 05 su ko defee mu mën a ñëw jotale ñu laajam comme mu ngi doon wax euh, ci euh, FEDAP ak seen taxawaay ak ni ñuy yëngatoo euh, ci li nga xamante ne moom mooy kuréel bi ñu yoreñ mooy fédération des artisans du département de Pikine ci xeex bu am solo boo xamante ne ñu ngi koy xeex booba loolu ndax Alassane waa toog na fi mu indi fi sax masque bi bari sax mhm. jox ko rajo bi surtout mhm. mu nekk acte bu bu noowul boo xamante ne artisans yi saa su ne ñu ngi yëngu ci mbas mi di ci weres di ci def naam ils sont impactés ah ñoom mm. dañuy impacté wu ci ci yëf yi mm. mais teewul tooguñu asalaamaaleykum mm-hmm. asalaamaaleykum mbokk mi moo ne yaa ngi ci biir de asalaamaaleykum asalaamaaleykum waaw kooku nag mun a yegg mais mu ngi ci biir moom dafa mel ni affaire bi dafa saturé parce que ñoom ñëpp dañuy bëgg participer dëgg la dëgg la dëgg la kon nag noonu la ndongo Thiam la ñuy fàttali moom moo nekk rek euh, ci euh, plateau pencum artisanat asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw sëñ bi noo def maa ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah tur bi Ibrahima Dia kolu ndongo Thiam ah Ibrahima waaw ñu ngi leen di ziar bu yal na yàlla nangu ziar Ibrahima. Euh, ñu ngi rafetlu ci teewlu ñu ngi teewlu président Ndongo émission bi. Mhm. Euh, di leen xamal ne yàlla. Mhm. maa ngi xamante ak moom ci FEDAP. <laughs> FEDAP waaw ngeen xamante. <laughs> waxee rek. Mhm. Ibrahima Diallo dëkkandoo Alsane Waar. waaw. Euh, xam nga FEDAP moom wax di yàlla moo lëkkale artisan yu bari ci département de Pikine. dañu invité ndongo moom ñu rafetlu invitation bi dégg naa mu ciy développé ci affaire cordonnier euh, ci importation bi nga xamante ne ci koy dugal ci ay dàll. dëgg na ñu koy rafetlu warte parce que euh, liñ ñu wax noonu dëgg la man daal waa solatuma ko. Mbadou. Mm-hmm. Mm-hmm. ah waaw mais li ci wax dëgg la de. Mm-hmm. ah li ci wax de yéeme na moom. loolu waaw. mais ñu ngi nuyu président Ndongo Ndongo Thiam. maa ngi lay ziar sama pël bi ci sama pël yi feneen bi la waxi <laughs> mais ñu ngi rafetlu émission macha gis nañ li ngay xeexal artisan yi ci secteur bi. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ngi koy rafet lu bu baax a baax a baax. jërëjëf Ibrahima. te aussi gis nañ euh, bloc national BNDA boobu nga xamante ne da nga kaa mm-hmm. gis nañ avant avancement yi ci nekk. dëgg yàlla. te artisans yi bëri gis nañ ci seen bopp waxatuma la saa defar Dakar mais région yëpp gis naa ak département yëpp mhm. ne saa wax dëgg yàlla ñi ciy soppantewaat di waxtaan nan la ñuy mën a fexee ba artisans yi mën a am conscientisation ba nga xamante ne ñun ñëpp dañuy xëccandoo dóorandoo te loolu moo ñu tax avancé loo mhm. ba ci financement yi ngay wax sànq mhm. financement yooyu kese kese taxu ñu développé il faut mais bàyyi naa la ak la ca def daal. <laughs> Ah. amul benn benn bu <laughs> ba wax loolu parce que financement yi moom taxul ñu avancé financement kese kese kese kese dañ war a mhm. jàppale ñu formation mhm. dafa jàppale ñu ay formation yóbbu ñu ba Pikine de former artisan yi. Mhm. accompagner leen nag mu leen boole ko artisan boo ci financé da nga koy accompagner. du lépp kon ñu ngi jaajëfal daal wax dëgg yàlla euh, mooy sa ki la dalal noonu si rajo bi. waa ATM xam naa. du ñu ay gan moom ci rajo waaw dëgg la moom. <laughs> mais kontaan nañ trop. du ngeen fi gan moom yàgg ngeen fi ñëw. dëgg la du ñu fi gan moom wax yàlla mais kontaan nañ gis ne yéen a ngi a baax a baax. yàlla baax na. waaw invitation yi noo leen ko mën a yokkee nag bëgg nañ ko. <laughs> baax na am benn problème <laughs> ñu ngi bu baax a baax. ok ñu ngi lay jaajëfal yow tamit Ibrahima. kontaan nañ trop. waa kay Ibrahima. Mm-hmm. mu ngoog nee na am na foom fu mu wax ne point boobu il faut nga xuus yi muy financement bi rek mm-hmm. Mm-hmm. doyul waaye forma ñu former leen accompagner leen maa fay wax waaw parce que financement dafa am lu ko jiitu mm. ñun ab saret di jiitu fas Sénégal dañoo mën jiitalu financement xaalis xaalis garaw te day yàq de mm-hmm. dama ne mm. fa laa yem dégg man dafa garaw ba dugg ma sax ci defar geeg yàq gi mi dafa garaaw rek lu garaaw moom doy na waar lépp ngi ci biir ko waaw parce que tey jii boo jënd boo amoon oto bu bees mm-hmm. bala nga am kër gu bees mm-hmm. ñu ne la ci koppar gañ la jox mm-hmm. ci seen ci eh, li nga jiite ci nga ko def mu tas bari na ci kuréel boo déggee ma wax dañuy gaaw jiital xaalis non xaalis et puis dafa garaaw garaw gi ma raxee mooy Aïssa su ma nekkee jiite leen di bandi bëgg ngeen fàtte ma yéen dama leen di jox xaalis da ngeen may fàtte pour jéem leen disperser quoi di seen bopp foofu fi may waxee xaalis dafa garaaw. xam naa ngay waxee xam naa fi ngay waxee. Sénégal dañoo gaa joxe wéccet. Hmm. man d'accord ma ci yooyu. Ah. man dama ambitieux man dama nekk jeune bu ambitieux man dafa am lu ma fu ma teg sama bët bii. Hmm. xam nga ma bëgg mooy lippal bi wax ñun. dañu war a jël nee naa la dafa am point bu ma commencé eggul ba léegi hmm. ma ne la Afrique. laa la wax de l'ouest central Afrique du sud Afrique du nord. man Ndongo Thiam maa ko wax président bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal membre FEDA muy hmm. ñun ax Maroc ñun ñoo fi am ay artisan ñun ñooy premier artisan dans l' ñoo fi créé lu yéem nit ñi di ko defar suñu loxo mais sénégalais ni fii billaahi wallaahi suñu tëgg yi ngay oto sax ba ne ko ñoo ñu defar ko mais tubaab yi defar oto yi saxaar ay tëgg lañ ji tëgg yu weex yi lañ ak tëgg yu ñuul suñu jigéen ñi def transformation fruits et légumes fii ci réew mi mais lu ñuy jéggaani bitim réew di ko wër ci supermarché jàmbur yi nekk fii nii yëpp am na fii. Hmm. te bii bañ ko bàyyee lañ tàmbali yax yu métteeg tànk yu métteeg cancer ak poumon tuberculose lu nekk dañu daal jënd ab canette yoo xam ne xamoo lu ne ci biir premier risque bi ci nekk sax nga ne ko kàcci noonu rek di naan di dem rek xamoo yow looy naan xamoo ay saan yu ci biir xamoo lu ci ne gën baal ma. ambalee ba mu lëndëm nii rek. Ah. nga ah. jël ko di naan rek di dem naan non affaire dafa neex ñu suukar ko rek ba mu la ngay dem nga naan non maa ngi daj affaire ay fruits la fekk du fruit. dangaa xam loolu. <laughs> te boo demoon Kaolack mère Ami Faye ñoom dafa ay jus yoo xam ne mango la ju ñu bay fii ci réew bi wala orange wala buy wala ditax wala daqaar yoo xam ne amul benn produit chimique bu ci dugg. danga koy naan ba suba di sant di nelaw di yeewu doo denti te da ngay gént guddi gi yëpp ñu dégg nga fi mu waxee bu baax. dégg naa bu baax fi ngay mm-hmm. waxee. ba ñu bayee yooyu lañ jagadi. mas ngeen gis benn ay picc yi picc yi feebaree gi déedéet xamal tax produit naturel yi ñuy dundee rek ñoom rek moo tax ñoom duñu wax kon pour yow daal li ñu moom dañ ko jégga dañ ko bàyyi dañoo gëmagut suñu bopp ba samay wax man foofu la da dul neex ñun faaw ñu leen di ñu moom covid bi jàngal nañu lu bari ñaata weer lañ ci réew mi dara dugg dara génn te ñu ngi dund di régler suñuy bopp artisan yi doo nga ci liggéey ak santé covid 19 bii artisan ak santé ko yore ñoo aar sénégalais yi artisan yi foo waxee ne artisan yi masque ñooy ñaw masque yi dëpp leen waaw Mercedes ba mu jombee sax daan dem leen ci artisan yi takk leen masque yi dem leen sol yi masque ñu takk ñu complexe ñi di jël ay ay masque ba bitim lan masque day daal doo ko commandé sa doomi réew mi maa ngi ciy gërëm Pape Moudou Fall directeur de l' emploi la xarit nit ku baax emploi la yor mais ku bëri yërmande ndaxte BNDAS bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal bañ ne bërit jàppale leen ci li mu mën lépp ci ci ceeb ci ay masque jox leen ko marché ni leen def ci seen bopp man ndongo Thiam dama joxe ay marché ba Ziguinchor Sénégal ci rajo laay waxe Touba Ndofane sax egg ba pare ne leen defar leen ko ngeen xool ñu ko yittewoo foofu ci hôpital yi district yi ngeen dem ngeen joxe ko ci turu PNDAS ngeen dem ngeen joxe ko fa ci turu artisan forêt ba. ñu jël ki ci ligne bi ñu jël ci ligne asalaamaaleykum Santoula naa la waaw. waaw bi. waaw jox ma mère bi waaw. allo allo salaamaaleykum. waaleykum yaay booy noo def waay. sama alhamdulilah. jàmm rek sama invité bi laa bëgg ndokkeel si. waa ndongo. ndongo waaw. waa tur bi naka la. maman Aïda Rufisque. maman Aïda Rufisque waaw. waaw waaw maman Aïda ñu ngi lay dégg. waaw waaw man euh, sama président la. Mm-hmm. ma nekk Tëngéej nag. waaw. ñu invité ka ma war a dugg nag wax ay baax baaxam. mbaadu. waaw waaw ndax ndongo daf ñoo jàppale yiir ñu. Hmm. te lépp lu mu am rek bëgg na kaa bokk ñun ñëpp. Hmm. Oh, nit ku baax la fu mu xam lu mu xam wax ñu fu mu am yóbbu ñu finance euh, bu loo bëgg ci liggéey rek mu indil la ko nga liggéey ko. Hmm. léegi léegi rek la ma verse xaalis bu bari boo xam ne bii daf ma ko doon jaayal. Mm. ma leen di seedeel ni nit ku baax la nit ku baax a baax la mm-hmm. jërëjëf ma te buñ ko invité nag tey mm. euh, ma ma xam ne invité nañ ko foog ma dugg wax ak moom waaw muy ndongo caam ku ñàkk ki ñaan ku baax ku yaatu mm-hmm. xol bi yaatu mm-hmm. koor geeg léegi lu ne defal nañu ko marché yi li nit ñi xëccoo jox nañu ko jox nañu saakuy ceeb lu ne jox nañu ko kon nag foog ma dugg wax ak moom ay baax baaxam jërëjëf ma Maïda waaw ngi mu ngi lay dégg bu baax maa wér maman Aïda. oh président baal ma ma présenté la soxna Aïcha ak Sénégal gépp di gis ngeen maire bii di wax. waaw jàngul tubaab. entreprise la yore. ca Tëngéej la nekk di ma woo. Hmm. yore lu mu dee dee trois cent nangam élèves. ay doomi daal kooku du créateur d' bu baax sax waaw Aïda ah. Couture waaw. Hmm. école ah. formation bu mag di leen mujj sax jàngalaale anglais français comme ku jàngu boo wax ñooy la jàngoo. mi ngi mi ngi hmm. jàngale ñoom mais déedéet. non Aïda Aïda Couture Aïda Couture dinañ ko seet si incha allah dana ñëw ci plateau bi. waaw bii rek mère bii rek mën naa ko woon usine kii kii entreprise. confection jërëjëf kontaan naa jërëjëf maman lu ne la lu ne dara liggéeykat la bu wallaay la si namul dëgg la loolu mooy développé ab réew jërëjëf jërëjëf waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaay booy <laughs> waaw ak ñoo gën a kontaan président bi nga invité waaw waaw te te dañ koy dañ koy indiwaat dañ koy indiwaat sax alxames muy suite bi incha allah waa kay mu mel ni ndongo li ñuy joxoon ci waxtu presque. ah déet déet déet ndongo de temps yoruma émission <laughs> foofu dañ ciy waxtaan. ndongo waa léegi man fi dara waaw waaw damaa yore ay kuréel ndongo c'est lu ñu war wax yëpp. li duf si nag bi xajul cin bi léegi xam nga nu ñuy def. dañ koy bàyyi tànk yi rek dugal yi lañ ciy dugal léegi mu ne nii alxames bii di ñëw incha allah. Mhm. Euh, ñu eggali ko su ko defee ñu waxaat ci beneen sujet parce que ñu fi war a wax ak ñu ci war a développer bari na surtout nag euh, FEDAP ak liggéey liggéey bi ñuy def ak yooyu yëpp foog ñu gën cee yaatal. ñu jël ci ci ligne bi ñu ngi paas waaw ñu jël ci ligne bi allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam. soxna Aïcha. eh kooku président la Massi la noo def waaye. jaajëf mhm. la. mais respect président Massi la Gueye. waaw dégg nga suñu invité bi nee na moom pareegul waxagul. <laughs> macha allah ñu ngi koy rafetlu. Uh-huh. waxtaan bi rafet na trop am na solo vraiment. Uh-huh. Euh, ndongo jàmbaar la. Uh-huh. mais fi ma bëggoon mu ñëw fa rek. mooy Covid bi ah. Mhm. waaw dafa laal artisan yi bu baax a baax a baax baax. Mhm. waaw xam nga euh, Massi la. Mhm. waaw moom laa ko doon wax léegi ma ne ko xam nga fu mu ne nii waxtu bi xoj nañu xoj boo xam ne am na beneen émission biy ñëw. te dafa gàtt léegi dama bëgg moom alxames bii di ñëw. waaw su ko defee mu dellu si parce que li ñu war a développé yaatu na. mu ñëw eggale ko. mu ñëw yeggale suite bi. waaw baax na comme li duuf ci nag wi xajul ci cin waaw. jaa du ñu rajo bi suñu rajo la. surtout. kon nañ bàyyi noonu rek ba xam ne sa jàmm incha allah mais baax di rafetlu waxtaan bi di leen remercier. d' accord incha allah incha allah waaw. waaw merci soxna Aïcha merci ci yëpp ah, angle yëpp la touché nag yëpp président. Mhm. mu mel ni FEDAP am na leneen nu mu taxawee ak impact bi Covid bi def ci artisan yi. Ah, ah. ak tamit formation bi ñu war a def tamit ak kuréel yi parce que kuréel yi tamit dañ leen seetaan. Ah, dëgg la te tamit euh, bëgg naa tamit euh, ki nga xam ne mooy ministre bi Dame Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. gannaaw gars yi xam nañ ko te am nañ yaakaar ci moom depuis boobu nekkagul ministre ba mu nekk ministre te xam leen. xam na fi yëf yi metti na wàcc ci terrain bi. mu nemmee ko ay njabootam. Mm-hmm. voilà loolu yëpp defe naa ne dinañ ci ñëw ci alxames bii di ñëw gën ko yeggaleeg ndongo. incha allahu rabi. ñoo ngi rafetlu ñoo ngi apprécié bu baax d'accord ndax waaw wuyul ndongo ndongo mu ngi noonu di wax sax surtout président président waaw maa ngi lay féliciter le remercier puisque jotaay bi ginnaaw yàlla ak yonent bi yow waaw parce que même aussi maa ngi wax Aïcha ne ko mhm. nee naa ko non man li ma bëgg développer yëpp mhm. moom xajut ci une heure de temps mhm. puisque ci benn koor rek lañ jot a taxaw dafa guñu benn paax te même koor boobu c'est intéressant te koor boobu sax waxaguñ ci dara bu doon saa maanaam ci huit yi la ñu taxaw fi mu dool huit jafe-jafe muy PGA bi aussi. Mhm. bëggoon naa mu laal ci ak man ñu waxtaan ci. Mhm. Mhm. parce que questionnaire bii ma yor. waaw am na yenn borom xam-xam ñoo ne ci réew mi toog defar questionnaire bu day nii. sélection huit corps de métier. defar kat bopp kii defar bopp ne ci. Mm, coiffeuse kii sonal nit ki yére na ci mais kii sonal nit ki daal la am maanaam ñoom ñi ñu bu ñu la sansee ba tànk den ngay def dem. <laughs> dugaluñ ci uude yi. foog nga sol dàll boobu. wuute yow doon na jiitu foofu. dëgg la mbaa bu ñu fa jiitu ñu complété ko. ñu ko waaw moom bu ñu ah. demal sangu sol yére. waaw dañaa solo daal yoro saag yoro pochette. baax cordonnier yi et maroquinerie yi PCA moom. Mhm. xaw bu ko jëlul moom. bu dee mm. dafa bëgg réussir mission tot nañ ko jël. incha allah cordonnier di Sénégal. Mm. non non non loolu loolu. groupe la loolu loolu moom jaaru na loolu leer la xam nga PCA moom. Ah. projet la bu ñuy apprécier bu baax. Uh-huh. waaw bu ñu bu rafet la applaudir mm-hmm. directeur bi nga xam ne moo ko yore muy waaw laaw léegi nag euh, macha allah mel na ni kon na ndongo. Mhm. ah euh, am nga chance de ne directrice nee na ñu continuer émission bi kon ñu jël ki ci bi allo. allo allo. allo. waaw salaamaaleykum naa asalaamaaleykum. wallaay ñoo la raw kooku. soxna Binta eh, yow Binta ba noo def. Binta eh, Binta bi. ça va bien Binta. ah dugg moom di ko invité eh, dugg moom. waaw dëgg la de. <laughs> ah macha allah sunu càmmi mi baax loolu. Ah. ndeysaan. soxna Binta la maa ngi leen di ziar. ñu ngi lay nangu ziar yal na yàlla nangu ziar ñu bokk na ñëpp. waa Afia FM ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. dëgg la mère Binta Ba. yàlla seen taxawaay yàgg lool. amiin amiin amiin amiin. Binta Binta Gueye la. Binta Gueye Ba. ah ok Binta Gueye Ba de Binta Gueye Binta Gueye Gaye. ah Binta Gueye Gaye. waaw ñu yem ci Gaye rek. ñu yem ci Gaye gi rek. waaw madame Gaye rek. kon boog Binta Gaye gayaale <laughs> bala gay mool la wax. gay moolum kon boog gay moolum géej. <laughs> jeex na. bi vraiment. Mhm. di la ah. mhm. dëgg la. nga waaw Binta. sa jigéen a lay nuyu. maa ngi lay déglu de maa lay fay. amatuma jàmm. billaay saan ba tey maa ngi buuxante. yéen la ma yàlla nattu nag soxna yi. am si la bu duggee dootuma dugg ndax moom ay kàddoom day gudd. waaw laahi. muy dégg ñu naan fii dañuy démission ma waaye ndeysaan. <laughs> xabata na ma. <laughs> soxna ay. naam Binta. artisan yi wax dëgg yàlla nag dañoo dañoo war a jàppale bu. waaw surtout dañu leen a jàppale bu soobee yàlla. incha a jàppale bu. war a jàppale moom. parce que bu doxul dara du dox. dara du dox moom dëgg la ah, moo yore réew de. ay sa imaginer rek nga génn wa ah du <laughs> muy mel. du ñaaw na day ñaaw de. ah lu neex xool lu neex xool lu mel. ah imaam bi day tànk leen jëm jàkka ja. lu muy mel dañ naan imaam ndax wér na léegi. mbala mbala mbala gisaloo pare te soloo daal. waaw. la. ah solo boobu solo daal. ay nga sañ sa ba pare bu takkoo takku si takkoo jaaw muy nuyoo. day na waat de. la. dëgg de liggéey ñëw sa kër. ah sa kàll meuble yi. dugg sa kër na. ana mu liggéey ak ñëpp. waaw dana des de. artisan yi kenn waru leen a fàtte. wallaay kenn waru leen fàtte moom. président lu muy def lu ne dafa war a jiital artisan yi. surtout surtout surtout surtout. mooy dëgg. Mhm. parce que ay jàmbaar lañ te mosuñoo taxaw di di ñaxtu wala ñuy jooy kenn. wala ñuy taali pëna. waaw mbala ñu wàcc ci mbedd di sànni xeer. mukk ci àdduna. dañoo ànd ak suñu ngor ak di liggéey te yàlla rek a tax. Mm-hmm. waaw dëgg la. jigéen nag ci koom-koom réew mi lay dellu si waat. waaw ndax tey ji artisan yi bu ñu xëyoon toog seen i kër. Ah. day ñaaw. day ñaaw de. oto yi dinañ wét de. vide la ñuy def oto yi dañuy vide. Mm-hmm. parce que boo xoolee lu ci artisan yi ñooy yéeg ci oto yi dem ak ñoom. waaw artisan mooy doxal réew. Hmm. tey réew boo fi dem artisan yi ñoom ñoo ñooy buur. Hmm. waaye nag artisan yi dafa mel ne dañ leen a. Hmm. laaj nag mais li Binta laaj na artisan yi xam ñoom ñooy ñan. waaw dafa day dëgg nag. waaye nag ñuy ko xasee yeewu de. noonu nga Atisa dafa mel ni na woon na woon na de. non yii yeewu nañu xale yii avec la dernière génération. <laughs> ah maam yi maam yi dañoo nelaw woon de maam yi nelaw woon nañu. Ah. maam nañ la sàmm dañoo seddoon ba nelaw waaye xale yi ma gis nii tey jii. Ah. génération bii. Ah. tout va changer incha allah. bàyyi naa xaw yi naan la de. Mbadou. jeex na. incha allah ci kaw kanam jeex na kon bataay psychologique ngeen di defati. ñu taxawal nii. mbaa da ngeen dem ci bataille psychologique léegi di bañ a xeex ak doole. ñëwee sa xel léegi nag ci xel ngeen di xeexee ak nit ñi. xel la ñuy xeex ak nit ñi. Eh, baax na a baax na adopté naa ko ndax ndongol eh, slogan bu bees boobu la indi nee léegi dootuñuy xeex ak doole mais léegi ci xel la ñuy xeex ak ñoom. xel la ñuy xeex psychologique. léegi ah. xeex ak ñoom waaw yàlla nag. ku ko xam ànd nga foog ma li ci suuf. baax na bokk ci organisation yi bokk ci fédération yi. Ah. moo lay tax yeew parce que organisation yi ñooy tax ngay xam lii xew. waaw hmm. dëgg la. moo lay yee. Hmm. waaye boo nekkee artisan nekk jàmbaar rek demoo hmm. dikkoo yëgoo. fay yàggat da ngay fonte mais nañu nañu nañu nañu tamit di di di bañ di tasaaroo nañu bokk ci benn kii bu kuréel yu mag parce que tasaaroo bi organisation yu bari yi moo tax nit ñi ku leen bëgg a féewale féewale leen te xam nga ñu bokk bëgg-bëgg waru ñuy mën a réeroo waa dañu war di mën a waxtaan à chaque instant pour xam fan la ñuy teg seen tànk pour am li ñu bëgg c'est ça ci lañu jëm gis nga soxna ay la ñu jëm nànk nànk rek xam na lañ naan nànk nànk mooy jàpp waaw nànk nànk rek la ñu waaw yombagul nag moom waaw doombagul moom fédération bu mel ne Konama. ah bu nekk international bi dañuy. dëgg la te su boobaa sax ci ngeen di xam ñi nga xamante ne ñooy mbubu woo seen mbubb yi di dox seen dox di lekk seen xaalis te xamuñu leen. te xamuñu te bokkuñu ci millier bi. ñu ngi noonu nag. voilà dana neex a segg bu boobaa d'accord. baax na loolu lépp baax na. baax na jërëjëf jërëjëf Binta Gaye. maa ngi ziar bu baax. jërëjëf jërëjëf. wallaay wallaay Gaye. mali bu neex ba jeex na dafa naa. gis nga de gay. <laughs> jeex na bu yàgg gay. <laughs> merci beaucoup. <laughs> voilà mu ngoog Binta Gaye ñu koy jaajëfal Binta Gaye. Binta Gaye waaw Binta Gaye Gaye madame Ba. mu ngoog mu ngoog fan madame Gaye moom Gaye la wax ah madame Ba voilà madame Ba mu ngoog sant jëkkër ji rek madame ma ne madame Ba la gaa koy wax léegi nag binta madame Ba sama mm-hmm. njëkkee bi mm-hmm. macha allah maay sa maay sa njëkkee <laughs> kon nag euh, dégg nga li mu ci wax euh, ak euh, mu mel ni rek ndongo mm-hmm. may nañu tuuti rek ci waxtu bi ñuy xuusandiwaat bu mën a am lu ñu développé ñu jël ñi ci ligne bi parce que bëri nañu nekkoon ci ligne bi ma si la man waa FEDAB daal dañu am chance saa yu ñëwee fi ñu may leen waxtu aloo salaamaaleykum waaleykum salaam Ibou Ndiaye sopp da baax la. kooku Ibou Ndiaye sopp da baax. Ibou Ndiaye sopp da baax. ay waay sopp da baax ma bàyyi ma wax sopp da baax rek. ndeysaan. waaw. <laughs> sopp da baax yal na yàlla nangu ziar ñu bokk ko. waaw tey moom tey da ngaa invité fii benn kàngam muy mm-hmm. président Ndongo. Mm-hmm. waaw noo def ñu dugg ci quoi. waaw ñu ngi leen di déglu waaw di di wax ni moom day béy waaram bu baax a baax a baax ci côté artisanat. Mm-hmm. waaw ñu mel nii lañ soxla ci côté artisanat nag ñu mel nii lañ ci soxla. dëgg la. parce que yéen tamit dañ leen di jaajëfal bu baax. waaw parce que yéen tamit jàpp ngeen ci artisanat bu wér wér. parce que moom la ñu am ñun artisanat la ñu ah. waaw. waaw ku koy ku koy teewal rek moom moom la ñuy déglu. ñun Afia la ñuy déglu. Mm-hmm. dëgg la. moom la ñuy béggee mais ñu ngi jaajëfal bu baax ndongo Thiam. Mm-hmm. jërëjëf Ibou. waaw di ko di ko sollicité bu wér wér di ko wax ni moom artisanat rek lay xeexal. Mm-hmm. waaw duñ def nag loolu suñ suñ ko invité fii ñu mel ni ñu dugg fi. sollicité euh, Mm-hmm. waaw naka ngeen def nag ak euh, mbas mi ci seen côté gi. waaw mbas mi métti rek xaw na xaw na impact ci seen liggéey freiné wul euh, yëf yi. non freiné nga toog ay 3 mois ay 2 mois 3 mois liggéeyoo. waaw ah. ah. waaw gouvernement bi di la dig lu ne. Mm. di la dig rek te ba léegi dara ñëwagul. Mm. Mm. si ay borom kër ak ñeneen dañ ci taxaw. Ah. wallaahi metti na metti na de waaw waaw loolu moom metti na macha allah mais yéen benn yoon ginnaaw si xeex bi ndax yéen a ngi defar ay masque di jox nit ñi ak yeneen ak yeneen masque day day liggéey masque yi deux cent francs waaw waaw ñun artisan li ñu war a def yëpp def nañ ko waaw mhm. parce que bi bi mbas mi commencé hmm. ay def nañu ay masque maye waaw maye dem ci mairie yi maye dem ci hôpital yi maye hmm. mais li li des mooy li ñu li ñu li ñu kii war a delloo li ñu gouvernement bi war a delloo mooy gunge leen waaw waaw mooy mooy mu gunge ñu parce que war ba ngeen mën a suqalikuwaat comme ni ñu defal hôtel yi defal ko ñeneen ñi mhm. voilà waaw waaw baax na alors ndongo dina ko gën a développé ndongo dégg nga foofu lu mu wax muy mbas mi mhm. euh, masi la foofu la doon wax sànq il faut ngeen laal ci parce que tamit dafa mhm. impacté trop ci seen liggéey bi te tamit ni ñu appuyer transporteurs yi appuyer ko Jakarta maan yi appuyer ko ñi nga xamante ne mooy Dakar dem dikk appuyer ko yenn père de famille mère de famille di leen jox ay dund ak yooyu artisan yi anañu alors ma ñëw foofu ndax un jour maa ngi déglu benn ki reportage hmm. ñoom ñu ngi ciy wax ni ñoom tam ñoom affaire bi dafa mel ne ñoom la gën a impacté hmm. parce que kenn ñëwul jënd seen ay matériel ak hmm. yeneen ñu jël ki ñu jël ki fi leen ñuy tontu ci loolu allo allo allo salaamaaleykum waaleykum salaam soxna si naa def waay ñu ngi sant alhamdulilah ñoo ngi lay ziare sa benn mbokk la bu ñuy wax Alassane Waar eh Alassane Waar noo def waay maa ngi nii rek ñoo ngi lay na yàlla ñu bokk Alassane Waar noo def ñoo ngi sant léegi maa ngi lay yónnee nuyoo. waaw waaw maa ngi koy dégg maa ngi koy dégg boobu ba léegi ñu bëgg a dugg mbedd mi xat rek. waaw noonu la noonu la noonu la. ba léegi ñu ngi kii. ligne bi dëgg la ligne bi laa tuddee mbedd mi dëgg la dëgg la dëgg la. <laughs> neen def nag naka waa FEDAP. ah la di la kontaane. monsieur la maa ngi ko naan nag temps yëpp danga la confiné woon Thiès xanaa léegi nag déconfiné noo. <laughs> rëcc na rëcc na <laughs> rëcc na waaye moom nag am na ñu mu tane. Uh-huh. ndax dañ ko confiné si wata soxnaam ah, de moom confinement bu neex la moom <laughs> waaw moo am nañu moo tax jàmbatul moo tax <laughs> andi andi naa ay lex sax dégg naa gis nga ko waaye dégg naa andi déedéet mbaa du <laughs> macha allah. macha allah ñu ngi leen di suñu mbokk moomu nekk foofu. Mm-hmm. Mm-hmm. ña ngi lay fayal sax di dëggal lañ la doon wax rek. Mm-hmm. mooy lañ doon wax ci FEDAC. Ah, bis bu ne dañ la andil keneen. ndax loolu loolu day dëggal ah, fédération bi mu doon. day dëggal tamit li ngeen doon wax sànq est-ce que mënu leen a doon benn. Mm-hmm. waaw. FEDAB si loolu rek lay nekk. waaw. FEDAB bu réussir rek artisan réussir. Mm-hmm. ndax FEDAB li ko intéressé mooy unir ñëpp ci benn benn décision. Mm-hmm. moo tax lépp li mu nekk day taxaw si li mu nekk di taxaw di dëgëral li mu nekk te keneen ku ko woo mu ñëw wuyu si la. dëgg la looloo ñu yóbbu Konomas moo ñu yóbbu Kopaas. moo ñu yóbbu moo ñu yóbbu ëllëg ci keneen ku ñu woo buñ fa demee artisan la ñuy tudd ñun ñëpp rek. ba li ñu gënal mooy ñu def ko national. comme li ñu mm. defee euh, Casamance. Mm. loolu lañ gëm ne ñun ñëpp dañoo war a wuy ci taxaw ci Casamance. Mm. def ko suñu confédération nationale. pour artisans yëpp daje ci leen ah ndax li tax bu waroon a yomb. ñoo bokk li ñu gëm mooy artisan réussir rek. ah dafa gën a dafa gën a yomb tënk. boo ne artisan uudeeg téye rek maçon yëpp a nga ca biir. bu artisan réussir lépp li liñ ciy daan wax naan ñaanal gaal gi mucc bu gaal gi muccee euh, li ci nekk mucc mm-hmm. Mm-hmm. mooy bu artisan réussir rek lépp rek mm-hmm. waaw di kontaane comme ngeen xam ni moom ngeen fa recevoir waaw mu taxawee ko euh, toujours artisan la waaw ñun buñ ko xamee artisanat moo tax bokkuñ kaar bokkuñ mais gis nañ ku gëm euh, artisan la waaw les gërëm yow tamit bi nga xam ni vraiment yaa ngi ñun ak yow ñoo bokk liggéey bi ma dégg ngeen di laaj ba xam ko Covid bi laal nañu. waaw ah. laal na leen de seen liggéey kay. ku be ku metti la laal ba fi tur bi duggee la ñu laal. <laughs> déedéet ah, ah, ñun ñun li ñuy liggéey lekkuñu ko ni ah waaw loolu waaw ba li ñuy tiitee dañoo denc li ñuy yore ndax bañ a. <laughs> ñun ku sa daane ku sa xel dalul doo ñu liggéey loo waa waaw ñun dañu feebar bi ñaari côté la taxaw day am buy nekk ci yaram am boo xam ni daanaka loolu ñun ñun dafa naxtaale suñu liggéey. mbaadu. ah ñun moom ci ñun la tàmbale. Baro donc comme ñun boobu tur bi duggee lañ commencé am problème. Ah. te ba léegi génn fi te xamuñu kañ la fiy génn. Ah. ndax doo yor sa lenn di ko yemale ci lal. Ah. te mën a jënd ceeb boo xam ne mën ko ko dajale pour au cas bu grave. donc kon ñun kuy xeex ko Covid bi ñun ko koy xeexal. d'accord. waaw ku koy xeex ñun ko koy xeexal ñun ci tàmbali bu ba ci digg bi. ci mm-hmm. loolu rek lañ nekk. kon dafa nekk saxal suñu liggéey daal suñu xel ak suñu lépp la jaxase. baax na. vraiment euh, bu bu kenn am doute ci ne yi xeexuñu ci. Mhm. li gars yi wax dañ ñoo war a jàppale formation xaalis ak yëpp. Mhm. Mhm. loolu mooy dëgg. parce que artisan bu réussir Sénégal réussir. baax na waaw bu nekkee pour cent ci li nga xam ne moom mooy euh, liggéeykatu Sénégal. donc kon ku ko ku ko réussir réussir nga lépp. dëgg na. waaw pour ne pas jël temps beeg ñeneen ñi bëgg a dugg. ak kaw noonu. di leen kontaane di kontaane ma ah, <laughs> président boobu mais Alassane waaw bëgg naa tamit ci groupe FEDAB bi. ngeen annoncé ne euh, moom euh, Ndongo. dafay dellu si alxames. incha allah incha allah parce que il faut ñu gën a yaatal. impact Covid bi ni mu def ci. Mhm. li nga xamante ne mooy artisans yi surtout nag waa FEDAB ak nan la ñu namm taxawaatee. Mhm. pour bu après Covid nan ngeen di taxawee. après Covid. waaw il faut ñu waxtaan ci loolu. ak tamit ah. ñoom ñoom cordonnier yi tamit am nañu ah. foo xamante ne tamit dañ leen ci war a yokkal parce que dañ leen dañ leen dañ leen seetaan ba mu ëpp waaw léegi moom sax parce que fu mu nekk nii waxtu bi jot na kii ki ñuy uutu ci émission mu ngi nii taxaw te te xuus nañ tuuti ci waxtoom yaakaaruñu woon ne day ñëw mais ñëw na finalement mais il faut il faut il faut ñu ñu loolu ko waaw waaw waaw waaw mais ñu waxoon rek ñun incha allah waaw te ñun yàlla def na dañoo am jiit la mu wax sànq ne ñoo ko féete mag waaye njiit yàllaa koy jiital incha allah lu ñu waxtaan ba dégg ko rek waaw noonu la FEDAB doon doxee amul benn problème à lay doon maa ngi ko doon wax léegi président waaw à lay doon waaw incha allah waaw euh, ndongo rapidement euh, kii def euh, émission bi ñëw na ci lu gàtt rek tàggatoo pour joxe rendez-vous bi di ñëwaat incha allah waaw mhm. tàggatoo nii dama lay ñamal tuuti rek ah, ci ah. li ma wax balaa xaalis bi ah. nit ki da nga ko war a former mhm. muy tàggat ko bi nga ko tàggatee ba pare. daan ci ñëw biir ñëw dañ ko teg biir ñëw moom la ñuy ubbee moom la ubbi moom la ñuy ubbee biir ñëw bul dugg ci sujet bi ah. nit ñi di ko defee du ñuy déglu ah. biir ñëw bul dugg ci sujet bi voilà ok waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp <laughs> waaw euh, mboolem doomu aadama boo xam ne yaa ngi suivre Afia FM yaa ngi ko doon déglu yaa ngi doon déglu Afia FM ci fi nga nekk mhm. ak ñi dugg ak ñi bëggoon dugg te mënuñoo dugg ndax mhm. man xam naa ne daanaka kenn dugg bàyyi bàyyi ba biir ñëw une heure de temps yi sax sunu njiit ñi mer nañ ko limite xam nañu ñoom du président du waxee une heure de temps fi ne liñ mm-hmm. oh, ñu sant ko yàlla xam ne àdduna nag moo demee noonu du ci nekk mm-hmm. rek chaque chose à son temps comme ni xëy na fii la waroon mën a yem mm-hmm. di gërëm soxna Aïssa Rasoul mi nga xam ne mooy ki ma dalal fii tey di remercier encore comme ni ma ko ubbee woon monsieur le ministre Dame Diop euh, ak euh, son ami son frère sama c'est mon ami mon frère monsieur Moudou Fall directeur de mhm. l'emploi mhm. ak euh, vraiment fédération bi nga xam ne daan moo tax ma toog fii muy fédération des agents de département de Pikine ma mhm. bokk ci membre fondateur yi ak suma kuréel ànd ko bi nga xam ne jigéeni Sénégal yépp a nga ci macha allah ne taxawal ma fa cellule ci réew mi te seen chambre de métier dafa ma fa réunion chambre muy artisan forever muy BNDAS mhm. ma leen di nuyu ñoom ñëpp góor ak jigéen la waaye yàlla jigéen ñi dañ caa tubaab fa kàll mhm. doon ñu pasteefu duñu jàmbaare mhm. waaw may ñaan suma borom nag li ñu booleeg yaakaar ji ñu boole yàlla bu mu fa tase amiin amiin yàlla nañu ànd réussir secteur artisanat bu Sénégal

les artisans. Ah. avec Afia ah. AFM. Ah. les artisans vous deviez. jeex na dinañ ko lool dinañ ko lool baax na dinañ ci ñëw incha allah Omar euh, ñu ngi jaajëfal bàyyi rapidement tàggatoo seen rapidement ndax ñu ngi ñuy génne sa ci biti dëgg la dëgg la waaw di jaajëfal euh, mbokk auditeurs yi nga xam si ne doon nañ déglu seen rajo Afia FM mm-hmm. surtout ma émission bi di pencum artisanal di mm-hmm. jaajëfal aussi suñu invité bi mm-hmm. macha allah Ndongo Thiam di wax ni ñëpp ñu ngi leen di jox dig daje incha allah artisan la artisan yi liggéey day yokk koom ko seen émission pencum artisanat dina dalal El Hadji Ndongo Thiam di président collectif des cordonniers et maroquiniers bu Sénégal ak diaspora bi président it bloc national pour le développement de l'artisanat au Sénégal muy artisan forever membre fondateur bu FEDAP seen émission bi nekk alxames ay doon Ndongo Thiam fa yéene cee jàkkaarloog Aïcha Bagay ci seen émission pencum artisanat bu 16h jotee jàpp 17h kenn wutee ku ci bëgg a bokk mën nga